Je vous remercie, Monsieur le Président. asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu man dama jàpp ni tête de liste Benno Bokk Yaakaar bi muy wax ci saasi ak patam patam ji mu doon def pour gaaw wax nombre de département boobu rek la avoué defetam c'était loolu langage d'initié la c'est un langage codé qui s'adressait à son clan c'était un appel au secours dès lors son clan s'est organisé et a déclenché le processus de fraude en quoi faisant en organisant les quatre départements que sont Matam Ranérou Kanel et Podor un PV sans signature de représentant kooku c'est un produit de la fraude c'est de la fraude pure ça veut dire que c'est un PV tombé de nulle part fabriqué produit qui participe à ce processus de fraude processus de fraude boobu boo calculer te loolu du waxuma la ñun les acteurs politiques mais dañu war a xam ni Yewwi Askan Wi euh, population yi peuple bi moo ko adopté mais au-delà du peuple c'est une question de vote c'est-à-dire ñi nga xam ni ñoo calculer différentiel bi nga xam ne ñoo nekk entre ces quatre départements ba muy deux cent quarante mille voix ci coefficient wu soixante mille deux cent quarante et un ça va faire quatre députés moom il s'est mis à raconté dans son appel au secours il leur dit moi je n'ai que des départements où on compte 1 2 1 2 1 2 donc débrouillez-vous pour nous trouver dans la fraude quatre députés on ne peut pas laisser passer le peuple ne laissera pas passer le peuple va s'opposer à cela à cette fraude massive parce que ce vote-là c'est le vote du peuple c'est le vote qu'on n'a pas acheté c'est le vote vote bu sell la vote bii vote bu sedd la sell la du vote bu ñu jënd du vote bu ko ànd ak corruption du vote ay transfert du vote dara vote la boo xam ne c'est la volonté populaire donc moomatuñ ko ñun li ñu am rek pour def ko mooy on a toujours service ce peuple et par rapport à ce service Déthié amatuloo droit dellu gannaaw parce que tu es en train de servir le peuple comme tous les autres membres de Yewwi Askan Wi comme ñu waroon campagne wax ak peuple bi comme ñu doon diriger liste bi comme notre tête de liste comme le président de la conférence des leaders comme ñun ñëpp dañoo servir le peuple permettre au peuple de s'exprimer de façon claire permettre au peuple de dire à Macky Sall doy na permettre au peuple de dire à Macky Sall au peuple de dire Sall que nous sommes souverains, nous sommes autonomes, nous avons le droit de dire oui, nous avons le droit de dire non. Donc nous rendons hommage à ce peuple. Et justement, par rapport au respect à ce peuple, nous occultons la réponse du clan de la tête de Que son clan réponde, c'est une affaire là. Mais duñ leen bàyyi 240 000 voix. C'est trop. Et non seulement duñ leen ko bàyyeel mais boo yóbboo fuye fouiller encore fouilliner parce que su ko jaree nañu commencé waat vote bi foofu ci ñeenti département yi su Sénégal yëpp validé seeni liste ñoom ñeenti département yi ñuy buure di bourrage ba finalement ñu reprendre la vote ñu war koy reprendre mais kenn du hypothéquer le vote de Sénégalais je vous remercie. Merci alors je que àdduna moom nit bu ci jom jógee rek dara desatu fa je pense que foofu la ñu toll je pense qu'il faut quand même qu'on revienne à des fondamentaux